ma seedeel ko aussi. noonee laa koy seedeelee docteur Cheikh Tidiane Dièye bi nga xam ne candidat la moom it. démb rek maa koy seetaan ci temps d'antenne gannaaw bi ma dafa mu dem dañ ngeen ñu fay jiital. son premier temps d'antenne dafa régler problème mu temps d'antenne nu Diomaye Faye nii kon di leen félicité bu baax ci loolu waaye di wax ni. mënoon na tombe ci kenn ku ne Aïda Mbodj nii mënoon na nekk candidate grâce su ko neexoon mu jël fiche keneen ak keneen mais tombe na ci Diomaye dama ko tànn nag wax naa ne ko ci vidéo dama koy tànn yàgg na te naa ne tax ma tànn ko ma gëm ni Sonko mooy Diomaye du waxantu du waxantu waaye joomaay mooy Sonko du waxantu bi ñu mujjee waxtaan avant dernière fois bi parce que démb ñoo ne woon ba ndogoonoo ci la colonel bi ñëw ne ñu da ngeen ma ne ko saa yi demal defari sa bagage da nga defar sa sikkim dina <laughs> alors mais bi ñuy mujjee waxtaan dañu toog waxtaan lu yàgg ñuy waxtaan ci yi nga xam ne mi ngi am te nit ñi yaakaar ni mun na andi féewaloo suñu diggante mu wax ma lu am solo mu ne ma président wallaahi politique soo ma arrêté parce que damaa yëkkati doom tuddee la ko te damaa bëgg doom boobu dama bëgg doom boobu ilaa yow mi ma la koy jox comme exemple kon suñu politique na roon boole ma bàyyi politique bi dama xam ni dëgg la ci moom ñaareel bi mooy nit ñaa ngi ne Diomaye comme bëriwul wax bi man nag Diomaye su ñëwee ñii soog ko sax moo tane ci ñoom man nag tiital na gaay waaye ma ma bëgg a seede ni Diomaye gën a nooy fuuf si ñoom ndax sama reetaan bu bëri lii li mu lekk ci gannaaw ñi ma xam-xam nañ Diomaye dañuy waxtaan benn jour maag moom ak Birame Souleye sama kër boobu affaire yi tar na métti ma ne ñii dinaa ko bu ñu jëlee affaire bi damay dama tegal ci suuf président loolu kenn du ko fi def fii amul chasse à la sorcière amul euh, fayantu amul et cetera keroog ma ne leen andi leen ma joomaay mu ñëw ñu waxtaan waxtaan quatre heures de temps ma koy gunge ba ci bunt bi ma ne xaar ma seet woon ma ne ko joomaay ñii il faut lii dafa yomb ñii il faut ñu def nii mu ne moom mukk ci àdduna président mukk ci àdduna bu ñu def erreur yi ñu def ñu. loolu. muy lu ma bëgg a yokk ci seede di sama digganteeg moom waaye di wax askan wi nii tànnuma ci hasard ndax dafa di sama rakk di sama xarit ñu ànd lu yàgg. ma xam li ma xam ci moom nee naa ko Diomaye nit ñaa ngi ñëw wax rek limité de visite mu ne nit du ñëw di wax ma ne ko du ma a sama nopp bi ba wëlbati ko loolu ci mbindam la bi may daanelee jëmmam amul solo sama doonte dañ naan élection présidentielle waaye projet la wax ak sénégalais yi am na ay aspects ci suñu programme boo xam ne nit ñaa ngi ci bëgg a profité wax ji bëri moom dina ci leeral waaye dina jël doog mooy nee naa ko président Diomaye mbirum vice président heureusement bu ñu nee sax lu ñu war a fal la. donc du pour élection bi dugal nañ ko ci xalaat bi di ko xalaat waaye ñaari choix lañu ñu am boo gisee xalaat yooyu am mooy hyper présidentialisme bi am ba pare lépp nekk ci loxo benn nit moo tax ki jiite réew mi fi mu ne nii sonn na boobu sonn yow ñu ne kon ci biir pouvoir exécutif bi ci boppam war nañu mën a rééquilibrer les les attributions. Donc, on peut avoir 100 postes premier 100 postes vice-président. Donc, si on a les réunions de France, en 2007, modèle de